recoupement ci réew mii ñu sonal Macky Sall te boolewoo ci buggan gi tëdduma nelawuma maa ngi tibb tànk maa ngi xolli bopp lu nekk danaa ko def pour buggaan jërë ngeen jëf mbokkee askan wi ñoo ko dégg noonu kookee rek di Bougane Gueye Dany nekkoon ay kàddoom saa su ne rek moom ba tey jàpp na na rek li mu nekk opposant moo tax ñu koy xañ loole lu bëri bëri jamono ji conseil constitutionnel li daal Bougane Gueye Dany mel na na rek moom kese moom nag lam war a mottali li nga xamante ne seen rek moo nekk ay doublon star daf ka bëri la lool moom kookee di Bougane Gueye Dany comme na mu dalee kookee di Idrissa Seck ak Papa Djibril Fall ñoo ñëpp rek li leen dal bukki bu màkk ñooñe moo matt rek ki xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany fa fee sa conseil constitutionnel loolu nag jamono ji ñu nemmeeku daal ba tax na loolee ma ngay a jaar xam ne moo askan wi ndax nemmeeku na na candidature yu bëree bëri loolee rek la ñu am problème ay doublon externe yu xamante ne si ne parfois bus ko génnee lool ba tax na rek daal leen may si diir bu gàtt rek ñu daal di mën a lijjanti loolee daat koy mën a régler rek ñu war a mën a jàll rek sa boobee de candidature ku ko si jàllul nag soo moytuwulee doo bokk rek si élection yi ñu jëngmale 2024 loole nag ba tey ñu xam ne ñoom la dal mi Papa Djibril Fall ak Idrissa Seck ak yeneen i kan yoo xamante ne si ne lu mel noonu daata na leen dal si wàllum na parrainage foofee sa conseil constitutionnel mu doon loo xamante ne si rek sa su ne na nga koy jàngat duñ jeexal nag te waxuñu Ousmane Sonko tey jii rek la war a jàll foofee moom it sa mbir moomee sa conseil constitutionnel